la division ku fi weddi xaru président génn na <laughs> woo leen Bart <laughs> Barthélémy Dias génnal ñu jubilé ana Bart <laughs> campagne ngi doo commencé woo leen Bart koñ bi ku fi weddi xaru xalifiste yi ñëw leen invité nañ leen dégg ngeen lii ku mën rek koñ bi ku fi weddi xaru waaye sama Sonko ko <laughs> yóbbu leen ma Sonko palais <laughs> yóbbu leen ma Sonko palais <laughs> yóbbu leen Sonko palais Sonko bu mu ñibbi këram de yóbbu leen ko palais Sonko palais Macky Sall génn na dégg nga seen baay ñëw na. wala leen baat li mu jaas ngeen ne ko bu mu génnati baayam ñëw na Xalifa bu mu génnati borom dëkk bi génn na alhamdulilah na nga def bés bi dina ñëw. non ku nekk bësam nit ndeysaan <laughs> dama doon nelaw et eh, yi partagé leen ko dégg <laughs> dama doon nelaw taluma leen xol yi mbaa xool yi féex na ku sa xol féex rek defal kër ku mer demal xaru <laughs> ñi seen xol féex ci live bi dañu bind ay kër tey moom dañuy bëggee Naby Vision non Bart Bart génnal dégg nga dañuy jubilé léegi yéen yéen ñi am militant yéen bu fekkee am ngeen militant génn leen ngeen def li Sonko man dégg ngeen kuy wéet di xaru ana waa xalifiste ana seytaane yi ana waa baat ana waa PDS ana waa PS garaawul xam naa ne petite famille ngeen yéen boo leen génnee tey sax si mbooloo bi doo leen xoolal booy bi génnee sax ndeysaan yéen du ñu xam ne yéen bokk ngeen Sénégal ndax yéen da ngeen bëriwul petite famille ngeen léegi na gis ngeen bés bi ñëw naa xalaatoo leen woon ne dina ñëw de ñëw na yàlla ñëw na léegi setal nañ ko wicc wicc wicc wicc Barthélémy Dias génnal tey na ngay commencé di naan tey rek ngay commencé naan tey ngay commencé sàngara dans deux semaines ñu récupérer caabi rëbës dans deux semaines le Sénégal va nous appartenir. Dans deux semaines, partie y parti a une Vision. bu leen <laughs> vous de bu voyager bu vous voulez bu de voulez de ne fuis pas hein. <laughs> yéen ñi doon gaar wàlle bu leen daw dee barki ñaan ngaa ñaana ñaan ne Sonko bu mu génn yàlla génne na ko dégg yàlla génne na ko léegi nag nañu xool ndax yéen kan moo moom Sénégal kan moo nekk président de la République ngeen xam non li yàlla rek ko mën da nga def dina ñëw guddoon na mais c'est fini non c'est fini tout contente <laughs> xoolal nelaw na jóg na jóg xoolal ñi seen xol féex yëpp nañ def ay kër léegi ñi nga xam ne nag seen xol dafa tàng nañ dem xaru ci maa ngi dem seetaan yi les premiers mots de notre président de la république président Ousmane Sonko voilà Sonko génn na dégg ngeen tey rek la xew bi di commencé neex non ba pare Macky non Macky doo nit yë nee nañu Karim du bokk te Sonko day génn te kan moo signé génn bi ñu ne la xalifiste yi kan moo signé génn yi ñu ne la waa PDS fii rek lañ leen di noqee tey rek ngeen di xam seen bopp. Naby Vision rek xamoon ngeen di bés bi bu ñëwee maam du leen rate ñun duñ leen rate seen kaña yi seen gunóor yi ñoom ñëpp ñu ngi ci suufu ron lal yi Mate ne nga yaay borom Dakar Sonko mooy borom Sénégal dégg ngeen Sonko mooy borom Sénégal Sonko génn na ah tey rek ngeen di dee tey rek ngeen di dee moom du leen tontu de ay nitam bu ñu génnee fees ci mbedd bi dinañ xool fan ngeen di campagne yéen a doo leen fi campagne ndax yéen yéen petite famille ngeen yéen mëtoo leen papa maman enfant tuuti famille. ngeen ñun bu ñu génnee ba fees si mbedd bi na xalifa génn kenn dootul campagne ti xam kan moom moom dëkk bi yéen xalifiste yi yéen waa PDS ana maam jaara faam nu mu tuddati euh, euh, euh, reine d'Angleterre de Pikine ne leen ko mu génn Sonko génn na dégg ngeen reine d'Angleterre de Pikine bu doon xolat dem leen ngeen fëgg buntu kër maam jaara faam ne ko Sonko génn reine d'Angleterre de Pikine na sol robe na ko don solé ak musóoram yooyu noonu na génn Sonko génn na dina len ray de ne na fa di lambar lambari lu ñu quand le quand le chat n'est pas là les souris dansent maintenant vous les souris là sortez le chat est revenu fi lañ len <laughs> di noqee <laughs> non le ko robe de fi rek lañ len di fi rek <laughs> rek defal kër. Naby Vision woo leen suñu noon yi suñu ennemi yi xool woo leen suñu ennemi yi suñu ennemi yi yëpp woo leen leen benn par benn bëri wuñu dee saqanuñu mais il ñu ñëw ñu invité leen ci xew bi tey rek ngeen di dee tey rek ngeen di dee li na ngeen ne Adji instant bii maam newoon na ko ni séeréer day muus mu def yëfu dof ba instant bii. Hein? ñu def loo ko yëfu dof fen loo ko wax lépp ak lépp lambar lambari léegi na fu mu nekk nii il est au courant wala j'espère qu'il est au courant la gardien maam jaara faam si elle est pas au courant dem leen yee ko ne ko Sonko génn na dégg ngeen Barthélémy Dias ah, bu fekkoon ne dafa naan toute la journée bay ronfle neneen ko tong tong tong tong tong borom giir dëkk bi génn na il faut mu ñëw fekkee xew bi Khalifa Sall ñoom ñëpp nañ ñëw fekkee xew bi par la force invitation par la force les lay non je pas venir mais vous allez venir tout par la force assister. <coughs> ange gardien elle la elle pouvait pas manger nous manger nous manger manger pour manger nous du manger du ko def instant bi nous génnal leen ngeen ñëw assister xew bi seen xol yi di nee naa boo leen di wéet di xaru boo leen di wéet di xaru ña ca prostate loon rek dinañ prostate ña ca feebarul yëpp nañu feebar yéen ñëpp xoola di ngeen range soit da ngeen dugg seen biir placard yi dootul leen génnati à jamais seen génn yi tuuti nañ xool fan ngeen di campagne yi suñu noon yi nekkatul waa APR de suñu noon yi ah borom dëkk bi génn suñu noon yi nekkatul waa APR de suñu noon yi raaju sew yooyu la janax yu sew yooyu noonu Mame Diarra Fam euh, Barthélémy Dias Khalifa man man samay noonu dama koy wax carrément xalifiste yi yéen a nekk suñu noon première noon Naby Vision lañ leen di noqee ah. génn Sénégal yéen a <laughs> non dama doon nelaw dama doon nelaw xoolal silifu neen laay kii nii dama doon nelaw dem wuti ji dem wuti ji écharpe bu ñëw toog wutuma ci sax yére bu rafet de suñu président moo génn dañuy jubilé suñu président moo génn dañuy jubilé te fu mu nekk nii yeewal leen ma Barthélémy Dias dina ñëw ci xew bi par la force day ñëw wala mooy day ñëw par la force <laughs> nee na ma ndax xaruwul ba muy xaru na ba pare de <laughs> non non eh, nee na l'âge gagné na nu mu tëddee damay nelaw man maa nelawul sax damay jubilé man maa ngi mel ni ku nekk Sénégal bu mu mënoon jël sama bu mu mënoon jël sama vol tout de suite dem assister xew bi dama koy assister ndax xew bi moo gën a neex ci àdduna xam nga mooy bu ñu la annoncé ne am nga baccalauréat rek nga kontaan kontaan buy bëgg a dee mais xew bi moo gën a neex baccalauréat suñu noon yi. voilà <laughs> hmm, euh, gars yi bi woo ñu naan maam ndeysaan fi mu ma fekk condition yam ma fekk condition yooyu lay jógee defee ko live comme ça baatu dina baatu day xaru <laughs> ummi ummi baatu day xaru de <laughs> baatu instant bi c'est fini tu es mort tiim moor sa baay bu mu nee na génn ji nga sa baay sax bu génnoon ci mbedd bi doo am nit yi nga xam ne moom la Sonko am yow boo génnoon ci mbedd doo am nit yi Sonko da leen sarax may leen ku ci ku ci nekk tuuti nit la la abal pour nga pour nga doon maire pour nga nekk député li ngeen commencé di def kakaa ci boppam léegi Sonko génn na dégg ngeen Sonko génn na booy weddi xaru billaahi booy weddi xaru dégg naa dem nañu ba ci Macky Sall ne ko bul génnee Sonko boo génnee Sonko kenn fi campagne fii nag doo leen fi campagne ndax Sonko génn na Sonko génn na ah yéen ñëpp ku ci nekk na xam boppam ku ci nekk dina xam gàttam ku ci nekk léegi nag ah tey la maam tey luy gën a fuu ci àdduna xam na mu tëjoo sama génne instant bi tey rek ngeen di dee xalifiste yi fu ma leen fekk PDS fu ma leen fekk <laughs> kon yéen PDS doo leen bokk ah Sonko génn na ko day campagne yéen seen parti si boppam signé ngeen connerie Macky Sall dool ñi nga Macky Sall la uh-huh. tey laa la xola Macky Sall bokk nga ci ñi nga xamante ne président yi gën a rëy ah ci Afrique pour dóor suñu ennemi Macky Sall da leen naa signé loo signé leen lépp liberté Sonko liberté xale yëpp ba ngeen signé ba pare mu ne Khalifa du bokk tey parmi parti politique yi am Sénégal xali euh, euh, euh, Karim du bokk parti politique yi nekk Sénégal yëpp ku ci nekk am na candidat ah, ba mu des yéen waa PDS kon yéen li ngeen di mën signé yëpp yëpp yëpp mënoo leen signé seen bopp pour ngeen bokk fu mu nekk di dem ngeen naan waa élection bu mu am yéen élection bu amee bu amul yëpp yéen doo leen bokk yéen suñu constitution bu si boppam moo leen bannir yéen waa PDS yéen waa Mame Diarra Fam une wa reine d'Angleterre de Il y a suñu constitution pas pour mo len bannir do len bokk mais Sonko day bokk Sonko day bokk par la force day bokk Sonko comme yoni bu ko yoni di nga président de la République du Sénégal day gagner xaju sax xaju la wax xaj bu Wo wo wo wo wo bu néwon j'ai mandaté le chien de ma maison pour qu'il soit président de la République du Sénégal chien bi bu génnoon sax la la wax day day remplacer Macky Sall Moi même chien wu Macky Sonko sax mo leen ëpp crédit ci biir Sénégal yéen wa PDS yéen wa Khalifis. <laughs> non <laughs> non <laughs> non non xew mi neex na xew mi neex na ba pare et sama gars live bi live bi fii laa koy yemale parce que man il faut ma dem xoole ci suñu président les premiers mots de du président bëgguma ci raté leen donc on instant bi en gardien mayu yàlla la de Khalifa Khalifa Sall Karim à votre santé <laughs> man <laughs> dormir m'a di dama non dormir ñima ma ma heureusement sa dafa sentir nelaw portable bi sonné ben yoon <tsk> mané wo buñ may wo ni, Sénégal <tsk> mané non bu insister rek. Vision. mané non. Sonko moo génn ma ne ko non xaa ma dugg ca Facebook bi ba xool li xew bi ma xoolee ne Sonko moo génn suñu ennemi yi laa njëkk a xalaat ci àdduna suñu noon yi moo tax yàlla bu la yàlla yàgg di di di rusloo si say noonu sama gaay instant bi kontaan naa kontaan boo xamante ne ni ma kontaanee nii ah ak mbégte bii nii am tey fi mu jógee <laughs> ñi ko signé wa PDS <laughs> ñu ngi leen di ndoqale <laughs> hmm. ba demain xoolal eh, gars yi maa ngi leen di bàyyi ba demain demain on va rentrer en live xam nga jéem a commentaire jéem a wax ñun su ci nekk sa xol ni mu sa xol fu mu toll merci beaucoup Afi sa xol ni mu féexee man instant bi sama xol ni mu féex xam naa ne weekend bi moom client yi dinañ ñëw agogo ah, ndax sama xol bi ni muy féexee dañ koy santé sax ñëw di jënd si carottes yi pour gën a nekk gën a nekk de bonne santé en bonne santé gën a nekk de bon humeur xam naa weekend bi moom sama weekend bu gën a neex ci weekend yi lay doon euh, maman Rosa maman Rosa waaw maman yaa ngi Sénégal xam naa yaa ngi bu yow moom bu ne yaa ngi Sénégal xam naa léegi nga dem ca xew ba yaa gën a bëgg làng maman Rosa. Naby Vision. bonsoir